ndeysaan Amadou moom bëggul Macky ray ko ndax lu ko Macky sant mu daw acc acc acc lu ko Macky mu plongé xamul na Macky mi koy tegal ndëgg sa def mi ngi koy piège ñu am film yi am vidéo yi am lépp corruption bi am na milliards yi génn na ñi war a encaissé encaissé nañu ñi impliqué wu ñëpp xam nañu te far bari moo ko def griot du président griot de de Djimbori moo def lii moom lañu yoon yónni moom sal ku yëpp moo ko def. bi loolu amee Karim Wade tëb depuis Dowa def ay tweet wa ay waay attaqué Amadou Ba way tapet nga mboqoon nga ci réseau yaa may xañ sama candidature yow ak Thierno Alassane Sall vous êtes des lâches peut être gis ngeen Karim toll ca Qatar di sànni ay missiles Macky ko jaxaseeg Amadou Ba Macky moo def lépp taxaw fee yëgu ma tinu ma bu kenn tuumaat te lépp moo ma def sax jaar ci suuf jël. video yi film yi audio yi preuve yi moom Macky Sall daal di koy jox Karim Wade ne ko attaqué Amadou Ba attaqué ko mën naa laa jàppale ñu taxawal haute cour ñu taxawal commission d'enquête parlementaire ma jël sama ay député ci assemblée bi jox la ak sa yos ñu taxaw def bloc parce que Amadou Ba moo la bëgg a liquider Karim moo Macky Sall moo génne Karim ci élection yi moo ko dàqalu sëf ko Amadou Ba jël kari jaxase ko Amadou Ba bii film Palme d'Or lay am festival de Cannes film bi Palme d'Or lay am festival de Cannes partagé leen ko mu yaatu film bi jeexagul de am na daaneel film bi fa mu jeexee foofu ngeen di comprendre

jox ko Farbari mu ànd ak Amadou Julde ñu dem defi li ñuy def waxante ci envoyante ay audio téléphone tout far Farba jël preuve yëpp yóbbul Macky Sall ñu léegi nag Macky jaar ci suuf jëfandikoo Karim ne ko Amadou Julde moo lay xeex moo lay génn ci élection yi moo def recours moo ko sant Thierno Alassane Sall fekk Macky Sall moo nekk ci ginnaaw moo yónnee Amadou Julde Amadou Julde bii fii victime la ci. top jim top Macky Sall bëgg Macky jappalé ko ci campagne pour mu fallu bëgg gi mu bëgg fallu ak bëgg gi mu bëgg nekk président motax muy jaamu Macky Sall bay top Macky Sall ci ay bëgg-bëggam yo xamné Macky da ko mujjé wul bu ci nekk Macky da koy tégal ndëgg sa tax ngir am ay firnde ngir man ko ray mu dé gis nga Macky dafa def une pierre trois coups benn doj woo xam ne boo ko sànnee day jam ñetti yoon dafa sànni doj doj wi jam ñett ñetti yoon ci benn doj nga jam ci ñetti yoon ñetti picc la ci jam mu sànni doj jam ci Karim mu sànni doj jam ci membre du conseil constitutionnel mu sànni doj jam ci Amadou Ba te ñoom ñëpp moom Macky moo nekk ci ginnaaw moo sànni doj bi ba noppi toog na pat ak lexam yi buy wax di sérieux sérieux lu te moo koy def moo bon bi loolu weesoo xayma na léegi nag Macky Sall dugal na ko ci game bi dugal na ko ci film bi acca xam nga film ku nekk sa rôle léegi nag Karim moo war a rentrer en scène pour jouer son rôle en tant que acteur du film le poney, moom je l' appelle le poney. moom ci film bi tur bi ñu ko jox mooy le poney. donte euh, njomboor bàyyam bi ne woon na am na ay politiciens yu mu yu mu àndaloon yoo xam ne dañ daan rey ay Pouné di def sacrifice moom nag c' est un Pouné moom laa tuddee le Pouné ci film bi. Karim oo ay député am oo Lamine Thiam mi nga xam ne Macky Sall lay liggéeyal Mamadou Lamine Thiam bi ngeen gis ci assemblée bi mu ne ah jaajaaja Macky Sall lay liggéeyal sàcc la question assemblée gi pendant vingt ans da koo lekk sàcc moog Abdoulaye Wade yëpp da koo lekk parce que Macky ne Lamine Thiam Macky Sall lay espion la moom Karim Wade da koy. gëmul Karim Wade mak Sall lay liggéey lu Karim Wade ñàkk Lamine Thiam ko ko xañ parce que mak Sall Karim Mamadou Lamine Thiam bi ci assemblée bi groupe parlementaire mak Sall lay ak ak Saliou Dieng ñom ñaar Saliou Dieng ak Lamine Thiam ñu nekk ci commission d'enquête bi mak Sall lañuy liggéeyal ñom ay pion mak Sall lañ yu infiltrer Karim Wade comme Karim mom xam nga il a encore ses couches il n'est pas encore propre c'est un gamin eh, un fils à papa oui papa tia tia di wax di dara xamul xam nga c'est un idiot il n'est pas intelligent si le ko gën a yeewu doom ji doomi Abdoulaye Wade si le bu doon góor ak am politicien mais Karim c'est un idiot moo papa ji xol ko ben jour ne ko je dirai à ta mère que tu as bien travaillé parce que Karim n'a jamais bien travaillé Abdoulaye Wade xamna na loolu Viviane Wade xamna na c'est un nulard motax il ne réussira jamais en politique c'est un idiot un aigri un méchant Karim Wade j'en passe mon rentrer en scène on a l'acteur le plus nul de la scène nag léegi moom ni koy use mom Karim Wade mom mak Sall nga ko utiliser léegi mu dugg en scène nak هو اي لامين تشام سالو ديان تك اي استراتيجي فو ngeen taxaw oui commission d'enquête parlementaire Macky nako amul problème dama lay jappalé président assemblée bi mamadou mam diop dina ko won nako lu fi wa PDS dugal na jallo taxaw acca kusa jappalé len len farba yeen ñep abdou mbaw kiriku rek ñew ñu nako acca moy président groupe bi kiriku moy groupe ben boko yakar aji sar kiriku xam nga tebu won aji sar waye mën ta kiriku jimboori mobilisé leen pour lan commission d'enquête parlementaire Karim toll ca Dubaï nag yaakaar na moom xam nga c'est un enfant ma ngay cëppi gi di tuit di sànni gars yi di tàcc waay Karim waay ngi koy dëbb dëbb yoo xam ne Macky ngi koy te haute trahison bi xaar Karim Wade pièce bi ko Macky Sall tegal xamu ko sax moom Karim Wade dofam yi mu àndal Dakar nag ñoom pour ñoom Karim mooy ponkal bi xamul ne Macky ngi koy tegal ay ndëgg sërëx yoo xam ne Karim Wade toute sa vie sera foutue billahi dégg nga de ñu taxawal seen commission d'enquête parlementaire fast track la ci xew xam ngeen ko Macky Sall jël preuve yi jox Karim Karim jël preuve yi Lamine Thiam Lamine Thiam ak Saliou Dieng ñu dem toog ca assemblée ba ak Amadou Mame Diop nas seeni nas pour la commission ku ñuy enquête les magistrats yi nekk ca conseil constitutionnel dañ ne dañ leen a ger ñoom lañu war a déglu ku leen déglu Kirikou ak kan Lamine Thiam ak kan Saliou les trois personnes les plus nulles du Sénégal ñi gën a nul ci Sénégal mooy Lamine Thiam Kirikou ak Saliou Dieng nga xam ne docker sax waruñu ko woon nekk réew mi réew mu normal ñooñu docker Ablaye Wade ak Macky ñoo yàq réew mi waaye ñooñu docker waruñu ko woon nekk Sénégal ay docker ñooñu ñu taxawal ñooy taxawal commission d' enquête parlementaire ku ñuy atte ñooy atte les magistrats les juges yi nga xam ne ils ont fait leur humanité ñoom ñi nga xam ne seen i sommité ñoom la ñuy wàcce dégradé leen pour tooxal leen ci ni Macky Sall di traité doomu aadama mu jël ñi gën a suufee ci askan ay Abdou Mbaw ki ay Lamine Thiam ki ay Saliou Dieng la Macky Sall ñoom laay toroxalee les magistrats parce que la ma bëggoon ci ñu éliminer Ousmane ak njabootam defuñu ko commission ba gis ngeen Karim victoire papa papa j'ai bien travaillé oui Karim il n'est pas intelligent il a toujours été comme ça tout petit papa ci Karim n'est pas intelligent jamais il n'a été intelligent pour victoire de Karim Karim pour il a pour commission d'enquête de la encore dañuy taxawal beneen proposition de loi pour pousser élection yi Macky koy piège bi Macky joxaat ko beneen yàq Karim muy seeñu xam nga puune la puune waaw léegi on va reporter les élections mi ngi bàkku di xamul ne Macky nga koy saxal rek di nga jox ay yàq muy sax rek am na yàq boo xam ne dafa damm ci biir dafa am lonk-lonk boo xam ne bu ko Karim saxee buli gi lay dagg hémorragie interne lay am te Macky mi ngi koy jox yax boobu da xamul xam nga moom puune la xamul lu xew yee puune. bi loolu amee Macky Sall ne dossier Rose Wardini double nationalité française am Macky génne ko bi mu ko génnee jox ko Karim Wade ne ko Rose Wardini dafa am double nationalité comme yow ab yàq la ko. moo tax Karim Wade ca tweet ba mu ne am na ay candidat yu am double nationalité mais du ma ko tudd ndax sama esprit républicain mayu ma ko ma ne ko da nga trahir l'article vingt-huit de la constitution en tant que candidat li nga def parjure la dañ la war a tëj yow Karim Wade xam dëgg buy dàq dëgg boo xam ne ay fen la nga xam ne ci li muy wax ay fen la méngoowul ak chaque yi réew mi nga xam ne ay fen la nga nëbb ko yow Karim Wade loolu acte de parjure nga def dañ la war a condamné waratoo jiite réew mi waratoo waratoo sax nekk candidat c'est un lâche mu ci bëtam waaye ndekete gëmmu ci bëtam de booba da doon xaar jotul woon mu génne bu war di ni makee ko ko jox mu téye ko makee ne ko bu ko génneegul daañ ko soxla ci kanam su ma demee ba war a jël décision nga koy génne jabaxal ko ci biir ne ko ci pëy mu saxaar ñu dem commission d'enquête parlementaire ba taxaw na Karim crié eh, na victoire ma ngay ñoqale encore ne du ma yem foofu léegi damay proposition de loi pour ñu dàq élection yi Macky ne ah sama fourne bi jàpp dama doon boyal waaye li ma boyal nag boy na ba yàññi xam nag na ci kes sama diw nag sànni ci yéet ak soble ak kaani ak tuuti xorom ak sama tamaate loxoti bàyyi mu doore he Macky nee na day ceebu nee na day ceebu jënd Penda Mbaye lay togg tey bu ndar Karima koy Karima koy togg te yëgu ko tey mu dee cas Russie ba foo toll ñu dégg Russie ba taalaale ba ca ndar hii tey Karim Wade dee Karim ma ngay bëy bëy papa hii hii Macky da ko billahi da nga xam ne doomu <laughs> njombo du jur doomam Bila dia tanya kamu sampai jombor, sampai jombor, jombor, gua pada cerita kamu lebih dengan dia kali. Bagi pergi pergi dah. Eh, eh, eh, ya kerja kau makin jauh asal malam bifun dulu. Kau yang bagaimana kau? Aisyah gonggo Bismillah. Lalu bagaimana kau? Aisyah kamu nak mati? Kau itu liza kau sahla. Ibu pada cerita kamu lebih dengan dia. Macky Sall daal dina nag li ma doon teg yëpp presque teg naa ko li ma bëggoon am na lu ci mooy waaye am na lu ma ko jubbante ndax li bëggoon mooy daq waa Pastef yëpp ci élection yi ñu génn fipp xeex réew mi tànk ma jaare ci fuus élection yi parce fi wax yëpp benn jumtuwaay la am benn objectif la am benn but la ci Macky Sall bëgg mooy jaxase carte gi ba mën fee toogaat li ma fi wax yëpp li xew ci réew mi yëpp Macky Sall moo ko préparé avant togg ko lépp teg ay scénario pour ay acteurs pour ñëpp jouer jeu pour que ñu mën tàbbi ci li ba man ci sukkandiku ngir jël faux décret boobu nga xam kenn gisagu ko pour jéem dox ci xelu nit ñi di essayer xol ba xam bu nee tuxal na élection yi ndax nit ñi dinañ yëngu ou pas mais élection yi kenn tuxalagu ko day tester fi mu waye nii waaye moy fofu la jëm a ñun mu utiliser Amadou Ba utiliser wa pasteur utiliser Karim Wade utiliser ñep ngir lan mëna am lay bu ko mëna tax bu mëna a élection yi waye malgré lolu lépp. ba léegi amul lay bu dëgër ak fu mën a sukkandiku pour tuxal élection yi wala mu dàq ko amul tey dégg ngeen ko mu wax waaye li ci gannaaw mooy Macky Sall dafa tuumal Amadou Ba ne Amadou Ba moo ger waa conseil constitutionnel pour ñu bàyyi Bassirou Diomaye ak Cheikh Tidiane ñu jàll recours bi mu def da koo def pour sëlam Macky waaye ci dëgg-dëgg daf leen a jàppale pour ñoo ñu jàll kon Macky day tuumaal Amadou Ba da koy fenal de pour diaboliser pour waa APR yi ñëpp bañ a ànd moom mu ne Amadou Ba dafa bokk ci kon ñi lënkaloo ak waa Pastef di leen financé di jàppalante ak ndax ay inspecteur des impôts lañu comme moom ñoo nekkoon impôt et domaine Bassirou Diomaye kon Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw que day sëlëm askan wi di def def na recours ci contre Diomaye waaye en réalité moom ak Diomaye ñoo bokk nguur si nga rumeur boobu fen boobu Macky Sall moo ko togg moo ko génne pour lan yàqal Amadou Ba léegi nag comme campagne bi war na jub si parce que bés bu nekk dañuy jub dañuy jege élection am yëpp mi dox waaye nag temps bi Macky da koy gérer parce que Macky noonam bi gën a rëy ci jamono yi mooy temps temps bi lay gérer lu muy teg lan la war def bala ñoo agsi lii il faut que mu def lii temps bi gaaw gi mu gaaw bis yi ñëw te bu dem du dellu si te ñu ngi jege ci élection yi loolu problème la ci Macky Sall léegi il faut que mu accélérer il faut que mu gaawal mbir mi. kaw loolu yéen waa TikTok bi tapoté wu leen live bi ah TikTok bi yéen tapoté wu leen ah xaaral ma taxaw tuuti ngeen tapoté Facebook YouTube ngeen partagé ma noppi tuuti ngeen partagé. ñu partageons, ko ñu tapoté ko ñu partageons, ko ñu nous ko ñu Nayat, ko ñu tapoté ko na yaatu na yaatu jeexagul na merci beaucoup Nous partageons, nous tapoté mu merci beaucoup merci merci nous merci film YouTube Facebook encore partagez, partagez, partagez. merci beaucoup man damay euh, niveau bi niveau bi dafa TikTok YouTube Facebook merci beaucoup Merci beaucoup. Nous partageons encore, encore, encore, encore. merci, merci, merci. TikTok, YouTube, Facebook, campagne dajale nag sama sama yelwaan yelwaan gi ma dugal fii dugal fee naa dajale sama yelwaan yépp nag teg ko ci benn taabal nag xool dama yor pot almboodo taalibe di yelwaan jox ma fe dëriñ fee jox ma fa maafe fii suppukaani fee jox ma fa tufe ma jaxase lépp potu taalibe moom da ngay jaxase ma kii yelwaan na fee fu ne jot na ko nag léegi nag ndax waral nag xéewul jëfandiku léegi nag potu taalibe bi nag da ko yulli nag di dank di lekk jëfandikoo Karim Wade ak waa PDS utiliser na leen utiliser na Amadou Ba utiliser na waa conseil constitutionnel léegi dafa war a wëlbatiku nag ñoom ñi doon dugal ci mbir mi ñu mu ànd ak ñoom ñoom ñëpp mu tër leen rendi leen tuumaal leen tax mu koy def ndax li bëgg. moo tax mu def loolu li mu bëgg du xañ Karim Wade mu bokk donte loolu la def bay jubluwaay bi du Karim bañ a bokk dafa bëgg jëfandikoo ñàkk a bokk Karim ngir projet bi mu am moom bëgg-bëggam Macky Sall mooy fexe ba man fee toogaat dafa rey Amadou Ba utiliser ko ngir toogaat fi moom Macky Sall dafa ger juge yi nekk conseil constitutionnel ba noppi wëlbatiku di leen tuumaal ngir bëgg fee toogaat donc bëgg fee toogaat bi moo tax mu jël ñëpp ñoo xam ne dafa seqoon ak ñoom ba noppi wëlbatiku tuumaal leen ci mën a am lay boo xam ne ci lay sukkandiku moo tax sànq bi ngeen ko déggee muy wax mu ne dafa am ay tuuma yu teg ci waa conseil constitutionnel moo tax ñu taxawal commission d'enquête ña nga ci def ay enquête xool ba xam fu muy mujj waaye def nañu benn projet de loi bu ñu dugal aussi député yi ñu ngi koy xool ci wàllu nu ñuy def ba xool ba nu ñuy toxalee élection yi am na ñoo xam ne ni ñu ko defee baaxul lay yu taxaw yu yooyu yëpp mooy yalwaan dem na ba tudd ci candidat boo xam ne nee dafa am ñaari nationalité mooy Wardini Rose Wardini ci puzzle bi la bokk ñu ne woon nañ ko dig loolu ci film bi la bokk mi ngi ci script bi liir naa ko ci biir plan dañ ko préparé moom xam na Rose Wardini xam na rôle bi muy joué ci plan bi pour Macky Sall mën a am fu mu taxaw pour pousse élection yi Rose Wardini nekkul di fanaan di kërëm lay fanaan loolu ci film bi la bokk cinéma dañ leen di nax Rose Wardini moom xam na li xew ñoom ñoo ko ci dugal ñoo ko ci boole d' accord na dañ koy fay ay milliards ci loolu xam na ne mënut gagné moom dañ ko boole ci élection yi pour que mu joué film boobu kese. ¿Qué se...? film bii nag Idrissa mi ngi ci biir xam na li xew complot la mi ngi ci complot bi Idrissa Seck Malick mi ngi ci complot bi xam na li xew Boubacar Camara candidat xam na li xew mi ngi ci complot bi Khalifa Sall candidat xam na li xew mi ngi ci complot bi Rose Wardini ñu ngi ci biir complot bi da njaay donte bañ na ne du ma ci dugg yëg na complot bi xam na li xam parce que nekk ci complot bi moo tax ñu dem seeti ko pour boole ko ci biir mu am rôle bu mu joué mu daw tiit mais xam na complot bi kon mi ngi ci biir complot bi moom daaw professeur Daouda Ndiaye Boun Abdallah Dionne yëg na complot bi Aly Ngouille Ndiaye yëg na complot bi Mame Boye Diao yëg na complot bi Thierno Alassane Sall waxi nopp xam ngeen moom moo def recours bi kon moom yëg na complot bi ni ngi ci biir Thierno Alassane Sall ni ngi ci complot bi Amadou Ba moom duma leen na yëg na complot bi Amadou Ba mooy dirig mooy dirig acteur principal film bi mooy Amadou Ba Macky moo bind film bi mais Amadou Ba moo ko joué mooy acteur principal buugaa na nga ca kaw moo tax bañ ko seetee rek waa Pastef yi mu ne leen may leen ma ba samedi ku samedi ma tontu leen xaw ma waa Pastef ñoom dañoo xaw a naïf quoi waa Pastef ñoom xamuñu politique quoi buugaa da leen di mën a quoi ñoom maa ngi gis gërëm ma ko toog nag ko xongal li ko des ah wallaahi xam nga la la la maa ngi doon wallaahi asin wallaahi lay ya ma ma xool nga ñu ne non na kër bi kër udah ñu bukan wóor nañu de bugaan lañu doxaani ma ne eh, bukan ay bugaan xam bu ngeen ma laajoon wallaay ya, asir bu ngeen ma laajoon eh, bugaan ne leen rendez vous samedi rendez vous samedi ya, ya, wallaay asir ñàkk xam politique boo bon illah illallah waaye responsable leader yi ñu ne bu leen kenn tudd yàlla lañu bu kon bàyyi kon duñ ma consulter waaye baax na parce que duñ ma consulter dama leen gis ñuy lëcc lëcc ma leen ah billahi bu nga ni ma xam da ngeen may consulter ba la ngeen def dara waaye kenn du ma ci consulter waaye baax na bu fi kenn ñëw di yuuxu rek <laughs> wallahi asim ni ñu nay fe yëguñu lu xew ñu naan dañuy ñu naan buugaan la ñu dragué illah illallah ku koy dugal ci sa mbir kan mooy dugal buugaan ci sa mbir ay moytu leen buugaan xanaa xamu leen buugaan ay waay bàyyi leen buugaan te ngeen moytu buugaan Ah, man dama jombi nag ku leen fekk ñaan wallahi asim nañuy seeti bugaan bugaan bugat bugaan leen rendez-vous di tey la samedi de tey la sam de ana bugat rek passif ana bu ana illa illah ku masa gis lu melni ma am lu man metti deug deug ki sama gaay ni ñu nayi e sen fet yëgu ya, ju lu kaw ñom pour ñom ñanga ca pale ba ilaha illallah ku mas a gis lu ana ku gis lu ni mel da ngay seetli da de bi loolu Macky Sall infiltrer les recalés ci pésir ci film la bokk ne leen yéen maa leen joxoon ay xaalis utal leen ay récépissé ne leen dem leen ngeen nekk candidat ñu am deux cent candidats man Macky Sall cent yi maako sos pour lan pour wax sénégalais yi nga gis ne candidat yi na yooyu yëpp yàq élection yi ñu ngi tàmbalee yàq élection yi ca parrainage ba moom Macky Sall jël candidat dugal leen ñu def ay candidat Macky Sall nekk seen ginnaaw de ñu recalé leen ñoo xam ne kenn xamu leen ñu taxaw teg seen collectif daal di bind Macky Sall dañoo bëgg nga wax ci lii ndax laa laa la Macky profité ca ño Macky leen pousse de ñu bind lettre bi Macky jël lettre bi leen sukkandiku ci lettre bi sukkandiku ci seen i ñaxtu utiliser leen ni mu def Karim Wade la def recalé yi nax leen mbala lelelelelel ju dul jeex mën a tekk taxaw fi ma xool gis naan film bi rek bi mu paree ci rëkkale yi mu woo yeneen candidat yi nga xam ne jàll nañu nekk ci biir vay tudd na leen sànq a Seck Khalifa Sall professeur da Ndiaye E, Mamboy Buun Ali ku ma fàtte Mali Gaku iiw Mali loolu moo tax Mali bi ñu ko waxee mu ne moom it mi ngi xaar gis nga ba mu demee ban télé la dem am na télé bu ma gis barki démb muy wax TFM la je pense boo ko déglu muy wax nga xam ne xam na la xew Malick Gakou xam na ne ko ndax moom Macky Sall benn lañ yàgg naa leen ko wax Malick bu ma woowaat nag tax ma nga saa yu ma nee Malick Gakou Macky Sall benn nga woo ma téléphone laya laya wax man Malick Gakou bu ma woo de Malick bu ma woo dégg nga du ñi ma lim am na ñu am na ñoo xam ne jàpp ma seeni tur mais xam na leen dina ñëw xëy na après kon Macky am na ay kandidaa yoo xam ne ci ñi jàll ci vingt yi am na ci ay candidat yu bari récalé yi am na ci ay candidat yu bari biir PDS fexe na ba nax leen ba dugal leen ci ay fen ba ñu tàbbi ci Karim Wade naïf dugal ci waa PDS bés na Pastef bés bés bés bés bés Ousmane Sonko Diomaye négociation jinne bu ne Macky Sall yónni ne leen ci ñoom ñoom ñu taxaw ne kekk taxaw fu ñu taxaw foofu rek daal moo ko jaaxal bés na wet gu ne jaar na ko Pastef ñu taxaw ne kekk basiru taxaw ne kek Ousmane taxaw ne kek wet gu na jaar na fa Macky Sall ko tëg wa Pastef pour la bi di mana mat léegi nag wu bi rosi nañ ko ñulut nañ ko deng nga maam seppi tey nañu sóor nañu walbati nañu benn ñaar wàññi nañu xal baral nañu yàq yàq ci des il faut yàq ko ah way benn mbay bu ndoomu ndar la di dañ ko war a yàq yàq gi mooy élection yi moom laa bëggul mu am ñàkk am gi mi ngi jóge ci li nga xam ne man Macky Sall maa ko sos maa nekk ci ginnaaw mooy saboté gi ma saboté élection yi processus bi li ci xew yëpp muy DGE caisse de dépôt et de consignation ger gi ñu ger juge conseil constitutionnel yi ak li nga xam ne moo ci am parrainage li ñu ko defee lépp man Macky Sall maa ko tey maa nekk ci ginnaaw moo tax ma jël ci Kaba yóbbu ko ministère de l' intérieur en tant que bandi ak APR mu gérer ma loolu ndax loolu Antoine Diome mënu ko gérer moo tax ma génn ko fa si diki Kaba pour que mu saboteel ma élection yi ba ma man cee sukkandiku taxaw ne dàq naa élection yi wala aj naa ndax jaaru ci yoon su fekkente ne élection yi jaaru ci yoon ci liñ ci jot a gis bu fekkente ne liñ jot a gis dañoo jàpp ne mënut a yi continuer bu fekkente ne li muy wax te amul ne dafa am te garaaw ba tax mu ne day toxal élection yi mais lu fekkente ne Macky Sall li muy wax am na li jaadu woon mooy moom Macky Sall mu tirer les conséquences moom mooy organiser élection yi dégg ko am ministre de l'intérieur waaye élection yi bu baaxul nga ne ki koy organiser mooy ministre bi moom doo ko dàq baaxul de waaye du fautu ministre bi logiciel bi doon de parrainage ministère de l'intérieur ñoo ko defar ñoo ko moom ñoo ko defar conseil conseil xamuñu dara technicien ya nekkoon conseil conseil di valider ak invalider ministère de l'intérieur lañ jóge daaf logiciel bi ñoom ñoo ko defar lépp lu nekkoon conseil conseil ministère de l'intérieur lu jóge waa léegi bu amee échec comme ni ko Macky Sall waxee ni doxul ba bëgg cee sukkandiku pousse élection moom élection yee ko pousse moo ko ñor loolu lay jéem a toxal waaye ministre bi nga xam ne moom doxalul yoon ministre bi def njombee li muy wax ne am na ministre bi saboté élection yi muy ministre de l'intérieur ba mu fa teg muy Sidiki Kaba moom dañ ko doon dàq ndax dàq ñu ko ndax Macky Sall dàq ko yàpp sénégalais yi la Macky Sall def élection yi jaarul yoon dama koy tuxal waaye li ko lan moo ko teree jaar yoon bala nga koo tuuxal kay ki nga ko dénkoon mu war koo doxal te doxalu ko kooku a njëkk a dàq foofu la doon xamee sax ne kii ku li wax dëgg mais ki koy jalgati yoon dàq ko ndax yaa ko ko sant Sidiki Kaba nga bàyyi ko fa mu ne non ñun askan ñun suñu moomeel nga ne duñ ci jot mooy suñuy ay élection nga ne da nga koy tuxal te mënoo koo tuxal waaye ki ko yàq ba nga sukkandiku ci yàqu-yàqu ba da nga koy tuxal kooku moom doo ko sanctionné kooku moom doo ko jox doo ko ay daan doo ko dàq doo ko wàcc Macky Sall ku mu C'est ces imbéciles qui nous gouvernent c'est ça ces imbéciles qui nous gouvernent on est mal barré quand on a tous des imbéciles pour nous gouverner on ne peut que vivre ce, ce, ce, désastre film bi bi loolu amee Macky Sall na léegi sama puzzle bi complet na meeb na Karim meeb Julde meeb conseil constitutionnel meeb les recalés meeb yenn faux opposants yi jàll meeb na sëriñ si meeb na woo naa kii meeb na président assemblée meeb na meeb naa ñëpp ñu takk ci ak buum bañ na kocc mu ne nag léegi nag jóg na li nga xam ne moo taxoon may def lii lépp sabab bi nag jot na nag ma jëmmal ko te sabab bi moom rek moo ko xam ne ah julde xamu ko ñim ci dugal ñëpp xamuñu Karim Wade ñoom ñëpp xamuñu lu tax Macky Sall di leen di ànd ñoom ci li ñuy bëgg mu koy defal ñoom ñoom xamuñu ko xamuñu ne Macky Sall li mu bëgg mooy toxal élection yi waaye pour Macky Sall mën a taxal élection yi il faut que mu sabote élection yi ba ñu bari ñaxtu sabote gi génn fukk ci taabal ji ñooñu di ñaxtu Macky Sall moo leen teg lii tax ñuy ñaxtu ngir ñu mën a dellusi ci Macky Sall Macky Sall jël leen jëfandikoo leen ànd ak ñoom ci seen i ñaxtu ngir mën a sukkandiku ci seen i mébét ci seen i ñaxtu ne dàq naa élection yi nga xam ne tey Karim Wade pousse élection da ko arrangé te xamul ne moom Karim Wade li ko génn ci élection yi li ko génn ci élection yi moom Karim Wade li ko ci génn moo ko dugal ci xeex bi muy xeex pour bëgg daax dàq élection yi maanaam moom dañ koo jëfandikoo moom dañ koo tëddee te yëngu ko dañ ko tëddee Karim Wade Macky dañ koo tëddee te yëngu léegi waa PDS làppatu yi waaw élection yi dañ koy puus Karim Wade moom rek bokk lalala ñoom xamuñu ne Macky Sall bu paree ci ñoom ci kaso bi la leen bàyyi Macky moom li lenn dong la bëgg Macky li mu bëgg yëpp mooy ñu puus élection yi mais Karim Wade du mas a nekk candidat ci Macky Sall bu paree ci moom da ngeen xam ne lépp dëgg la su Macky paree ci yéen yéen waa PDS da ngeen xam ne Macky Sall du ku ñuy ànd noonu lenn dong la bëgg ba tax mu àndal yéen provisoirement pro àndandoo bu gàtt lay doon ba am li mu bëgg mooy tuxal élection yi te mënu ko bu ci paree kalimaat di ngeen xamne deug dëgg la yéen waa PDS di ngeen xam billahi Macky Sall du ko ñuy andal di nga xamne lepp deug la da ngeen ñak jom fi ngeen jaar ak Macky Sall ngeen taxawal tay mel na dara mësu fe xew seen ñak jom seen jiru yu mbokk yoy ngeen may sa ciuj bi soogu jul fete ci ñen da ngeen xamne lepp deug legui léegi nag Macky Sall nag moom utiliser na ñëpp pour njëriñu bopam moy lan newaat noonu ci nguur ji toxal élection yi ba kenn du tànn président mu man fee toog nag ba saa su ko soobee saa su ko soobee waxul kan de saa su ko soobee lu tax ndax Karim Wade nee na bravo Macky Sall ndax lan Karim jàpp na ne bu ñu toxalee élection yi day bokk pour moom élection yi war a jiwaat da ciy bokk Karim moom ma ngay tàcc waa la porte PDS ñoo ko tax na ko waaye monsieur le président waaye ñoom ña ngay tàcc xam ñu xew lay xam ne lay asim xamu leen lu xew lay asim xamu leen lu xew lu xamoon lu xew di leen moytu Macky Sall kon jëfandikoo na Karim lu Karim bëgg mu defal ko ko ci assemblée bi Karim a ngi pëyi pëyi yëgul lu xew pour moom mooy gouverneur Sénégal hee haute trahison la Karim Wade nekk acte yi muy posé yëpp c'est des actes de haute trahison yu Macky Sall di gàll ci kaw ndoddu Karim après ak bépp député bu nekk ci biir assemblée bi ngeen di jéem a torpiller di tëgg ay pro ay proposition de loi yu ngeen di tëgg yuy torpiller les lois de la constitution nga xam ne charte réew mi askan wi ñoo ko voté par référendum mu gën Wade ak Macky Sall ñu leen di dugal ci guuta goo xam ne ngeen di poser ay acte de haute trahison yoo xam ne yéen député yi bu ëllëgee bu ñu leen di àtte bu leen yuuxu bu leen woo kenn woon maa ngi leen di avertir les députés de Benno Bokk Yaakaar et de Wàllu Sénégal bu ëllëgee bu ñu leen di àtte ci loi yi ngeen di ay voté ay loi scélérate ay loi politicienne ay loi yoo xam ne dafay daggu xormbay constitution bi ci bëgg bëgg ay nit ak seen bëgg-bëgg wallahi boo lëggee bu ñu leen di àtte mbugal gi leen di teg bu leen yuuxu bu leen woote wala bi loolu amee kon Karim Wade yow Macky Sall da da lay tër reen bi waaye déedéet tabaski lay xaar tabaski ñëwagul le mouton la Le mouton peut crier, là. Le mouton, il fait bruit, là. Mais le jour du tabaski, là, le mouton, il fait pas de bruit. Karimwan. C'est bisi qui bisi. Yo, tabaski, là, la main, ça, il te rende. Khalifa Sall, na de dialogue. Dañuy bokk yaay élection. Ana Khalifa Sall. Ana ana Khalifa. Nee na tey day point de presse. ñëpp di ko xaar mu ne may Cheikh Gueye la fa teg muy wax dégluwuma leen sax damaa dem sama yoon ana Khalifa du wax lu muy wax parce que c'est un roublard Khalifa Ababacar Sall c'est lafa roublard du wax Cheikh Gueye la fa teg muy wax lu kenn xam parce que Khalifa du wax parce que ni mu ci dil bi yéen la ñuy nax yéen Sénégalais yéen askan yéen la ñuy nax dañuy dialogue dem ci palais bi fu ñu tas yeewee askan ana mu am seen dialogue ana dialogue bi Khalifa Karim ak ba ngeen doon def ca palais ba ana Macky Macky woote nee na waat tey dialogue encore dialogue <laughs> nañ dialogue <laughs> dialogue moom dialogue moom réew mi léegi réew mi ci dialogue la ko dialogue kenn mësul dialogue comme mas gis lu mel ni dialogue ana Barth tokkatu yàmba ana mu Barth Barth dialogue l'homme du dialogue ana ana Barth de kenn déggu de ana dialogue ba seen tappale yi day jeex tàkk tàkk ci réew mi c'est fini damay xaram yi ngeen doon il faut que ñu jeexal lii 1960 ba léegi léegi fi am dafay day jeex tàkk par nii wala ci ne incha allah kon Karim Wade xarum la tabaski lañ koy rendi te rendi mi ngi suñu kanam tabaski yàggatul ñu soobee yàlla nañu fi yàlla bàyyi waaye li garaaw mooy preuve yi Macky Sall ut ci Amadou Ba ci ay wax ay audio ay film yoo xam ànd def ko ak yenn juge yi da ko bëgg a yëkkati toroxal juge yi to ñu topp juge yi tëj ci yenn juge yi parce que li ñu bàyyi Bassirou Diomaye ak Cheikh Tidiane Dièye mu jàll Macky nee na da koy fayoo ko ak yenn juge yi nekk conseil constitutionnel day fayantu ak ñoom saf waaye Amadou Ba mi nga xam ne moom bi lii xewee Macky da koo woon ne ko da ngay retirer sa candidature mu lànk Macky bàyyi ko ba boo waat ko barki démb ne ko damay repousser élection yi Amadou Ba ko du ci dal élection day am Macky ne ko nag tey ma rëkk sa dikk mooy lan la nga àndoon di ko def ak Farba Seck Ngom ma yónni leen ngeen di ko def waaye man duma ci feeñ ndax man Farba mooy filmer moo yor lépp. su nekkee ak man preuve du génn mais su ngeen àndee yéen ñaar di dem farba day indi preuve yëpp daf ma koy jox léegi farba moom maa koy protéger lu mënti xew moom dara du ko ci fekk ndax réew mi amul justice mi ngi sama loxo ku ma ñu jàpp ko ku ma bëggul kenn du ko jàpp farba kenn du ko jàpp moo tax mën naa def ko neex ci nañ ay milliards ci kenn jàpp ko taxaw na ci assemblée bi ne mën a kenn Alassane Sall nii dem nañ ci kër diw mu ger ñu jox ñu corrompre ñu kenn Alassane jël ma jël kenn woowu ko kenn enquête ko kenn jàpp ko tëj ci kaso ay milliards la yore far ba ngoon makee ko protégé kenn du ko laal kon kooku sañ naa def lu ko neex moo tax mu ànd ak Amadou Ba mi bëgg réew mi ñu piège ko dugal Amadou Ba ci ay mbir yoo xam ne bëgg-bëggu Macky Sall la plan wu Macky Sall la Macky moo génne milliards yi Amadou Ba joxewul milliards yi de Macky Sall moo joxe milliards yi milliards yi dugg conseil constitutionnel Macky Sall moo ko génne jox ko far ba ngoon mu ànd Amadou Ba ñu dugal ci Amadou Ba lënkal ko ci Amadou Ba dugg ci tax ci rip ngir bëgg ngërëmal Macky Sall bëgg waaw góoru Macky bëgg confiance Macky Sall moo ko ci dugal naïvement mais Macky Sall tëgg plan bi pour piège léegi Macky Sall ne preuve yooyu la bëgg mu génn assemblée nationale ci commission d' enquête bi ba preuve yi génn ñu accuser Amadou Ba de haute trahison jël Amadou Ba def ko ci kaso bi dépouillé ko. Amadou Ba yaa ngi may dégg ci kaso bi nga jëm ci kaso bi nga jëm Macky Sall préparé na ko jaxase na la ak Karim ba Karim Wade taxaw fas yéene laa écrasé yow Amadou Ba ànd ko ak Macky Sall Macky moo joué boobu noonu Ba fii ak une semaine fii ak une semaine mise en accusation Amadou Ba di ngeen ko dégg nee na ko mu bàyyi poste premier ministre mu lànk dañuy xëccoo ji. dina am motion de censure ñu wàcce ko te dinañ ko mettre en accusation en haute Ba ci kaso bi la ko Macky Sall dugal dafa lay dee waxantuuma de Amadou Julde Ba yow laay waxal Macky Sall teg na sa lepp sa dossier pare na Macky Sall monte nako jox nako juge yi jox na ko ko war a ñëpp tout ça question de jour la quel dans quelques jours yo Amadou Ba dañ lay japp si fi nga ne dañ lay japp tak la duggal na ci kasso bi djumlu ci say dossier jël ko tek ko ci kaw table yi te dossier bobu Mariam Faye Sall moo koy gérer yow Amadou Ba sa dossier justice Mariam Faye Sall moo gérer man la koy wax tout de suite su fekkee am nga ay nit ci armée bi ci police ci gendarmerie ci justice activer leen rapidement ñu jóg taxaw xeex ak Macky Sall contrecarrer le plan de Macky Sall ñu jàpp Macky Sall wàcc ko bu ñu ko deful une semaine laa la may yow Amadou Ba yaa ngi ci kaso bi man maa la wax lu mel noonu man maa lay wax loolu yow Amadou Julli ma ce dossier c'est fils pare nañ ko Macky takkale na ko ba pare pour tëj ci kaso bi. وهندومه دي kon Amadou Ba agneau di sacrifice mooy xar mi ñuy sacrifié bisu tabaski bi Karim Wade agneau du sacrifice dañ koy sacrifié yi Khalifa Sall moom deena bu yàgg yàgg yàgg yàgg yàgg Macky na ko jëfandikoo ne ko utiliser ne ko def ay dialogue dugal fee modifier ay loi yooyu yëpp tappaleel parce que Macky bi muy def loolu xamoon na ne élection du am Macky limi def loolu bu xa pour mom élection da koy tukhal Macky mo le limi def yeb mom pour mom ci xelam élection du fi am te ba léegi ci loolu lay dox te Khalifa xamu ko ñom ñep ñëpp ñu ko Macky def leen utiliser ñom ñep Ousmane Sonko ne moom sax dafa teel xam Macky nek togu mak mom waxu mak mom sequ mak mom la ndax jubul ku bon la toll day ab fenkat la lu mu wax du ko def lu ma ci mën di fekk ma jël waaye togu mak Macky Sall léegi nak kon Amadou Ba day de Karim Wade day dee Khalifa Sall day dee Idrissa Seck moom dee na bu yàgg moom ma ngay go ma ngay dañuy xaar mu médd médd gi lañuy xaar moom dee na moom moom dañuy xaar xet gi xet gi lañuy xaar mu feeñ waaye moom dee na bu yàgg moom moom dañuy xaar mu mu mu fàcc xam nga boo dee ba médd da ngay gonflé ba ne tëll xet gi di moom moom lool la ñuy xaar waaye dee na bu yàgg Idrissa Seck léegi nag li lepp nak mom la Macky Sall Macky Sall fartaatu fartaatu fartaatu fee rek ci bëgg-bëgg bopam ak bëgg bëgg ah, Mariam Faye Sall ci njabootu Mariam Faye Sall kep kep kep képp ci la Macky Sall sukkandiko def li mu def tay kenn jegeetu ko ci palais bi kenn dàq na ñepp gisatul kenn mom Macky Sall wóolatul kenn ko mu tok day xol di gestu bus bu nekk japp na dañ koy japp dañ koy ray tay coup d'état fi mu toll nii nelawatul takk na ay xànca ba ci xarfa fuufa ba ci takk ay ndomba ba ci tuur dara teg lu ne def nañ ko moom Marème ndax bañ ko leen coup d'état fi mu toll nii duñ fi mu toll nii jamono yi guddi gu ne mën ngeen a xëy yoo jàpp nañ léegi nag dafa am ay fen yu mu maa malgré tout ça nag ba léegi amul li mu bëgg li mu def yëpp taxul mu am li mu bëgg pour mën ay élection ndax dégg waxul tuxal na élection yi ba léegi yéen déggu leen ci lan ñu Macky Sall mu ne élection yi amul dàq nañ ko waxu dafa wax ay wax yu fi xew dañoo tuumaal kii kii dafa am double nationalité patati patata ay fenn feneen taxaw colal ba mu neex ko ci kaw lalam daal di waaw décret bi nga xam ne jëloon naa ngir ne dañuy dem ci élection décret boobu laa nasaxal moom laa faagaagal moom laa amul jël naa beneen décret bu koy faagaagal kon décret bi mu jëloon dàq na ko décret ba amatul te décret boobu moo woote woon na dañuy dem vote ji le vingt cinq février loolu loolu lu muy tekki loolu loolu lu muy tekki jël nga sa dogal ba neex la nga ne dogal bi ma jëloon sax tàq naa ko dogal bi baaxatul naa ko ci àll ba yaa yaa tulli yaa mbalax yow kotta du yaa kenn waaye li nga jëlee dogal bi jël décret bi bi dafa am ay conséquences ba nga ko jëlee dafa am lu mu ubbi am lu mu créé am lu mu am situation bu bees bu mu créé ñu jëm ci ay élection kon boo ko dàqaatee du tee ñun ña ngay dox dañuy dem yow kooku sa problème la boo boo boo sa décret wala nga abrogé ko kooku sa ton problème le décret a déjà produit ses sa escomptés moment bi ko jël dafa amoon objectif bu tax nga ko jël mooy convoquer le corps électoral ñi war a voté ñëpp nañu Macky Sall yoon moo ko jox sañ-sañ ne ko da ngaa a woote convoqué ñi war a dem élection deux mille vingt cinq le vingt cinq février ñëpp jël décret bind xaatim ne képp kuy sénégalais am carte man Macky Sall président yoon moo moo laaj na ma bu ma tolloo fii ci ay bis yu war a jëm ci ay élection naa jël xaatim ab décret woo leen convoqué leen ne leen ngeen pour dem wote ci le vingt cinq février décret boobu jël nga ko parce que yoon moo la nga jël ko mënoo koo a a jël nga jël ko parce que jël bi dafa am lu muy tekki. ci doxalinu jëm ci ay élection ci ay wareef yoo xam ne dafay war administration di war waa conséquence constitutionnel yi war a àtte di war man mii di Sénégalais di war a voté man dama cee am wareef dafa am lu muy jur ci man boo ko xasee ba jël dafa am conséquence ci man kon boo ko xasee ba jël ba conséquence escompté yi produire ba ñu jël ci toute l'opportunité du décret moo naam ko euh, préparer préparer campagne yi valider candidature yi distribuer carte yi carte électorale bi génn lépp ñu préparer ko mi ngi jóge ci décret boobu ñu jël ko ba agsi fii nga toog nelaw ba sa xol sedd yeewu làmb sa tubay mu fees dell lekk colal nga xëmbale ki sa kaw lal ba mu fees dell ndax sawkatu lal nga nga xëy taxaw ne waa maa ko jëloon de waaye maa waxoon waxeet bu la neexee yaa waxoon waxeet sa problème la waaye ba nga waxee wax ji dafa am lu mu jur loolee mu jur nag kenn mënu ko dëjël c'est un processus

mbell mbell mbell mbell mbell Macky Sall amul pouvoir arrêté ay élection amul sañ-sañu téye élection am na nag bu ko neexee mu jël décret ba mu neex ko mu rapporté décret bi mais décret bi moment bi nga ko jëlee dafa am ay effet yu muy produire dañu ne Karim Wade bi mu dugalee dossier am na Sénégalais la bi ñu demee